assalamualaikum wa ñu ngi nuyu euh waré mi ak ñi ko dëkke di nuyu mbolém ko xamné ne yaa Opera TV di nuyu njiti réew mi El adam Adama Barrow di ko ñaanal jamm ndax jamm moy jamm réew mi di nuyu lu lambi Gambia yépp ak lambi Sénégambia di nuyu Serigne ci am mi nga xamné mo moom moo lamb ji. di ko jox cëram ak wàccuwaayam di nuyu athlètes yi nga xam ne ñoom ñooy wax ñoom ñoo tax ñu ne làmb di nuyu itam promoteurs yi nga xam ne lu ñun jàgg ñoom ñoo jàgg lu nuy képp koo xam ne rek képp moom bàyyiwul kenn képp ku nekk ci ahlu làmb gi rek ñu ngi lay nuyu la jox sa cër ak sa wàccuwaay waaw kay bisimilah. am na solo on fi ñu tàmbali waxtaan rek gis na national team bi demoon na fi nga xamante si ni euh, mooy biir Rassurène fi nga xamante si ni mooy dakaar ñu gis euh, gars yi dem ñëw indiwoon benn li nga xamante ne mooy médaille sa jàngat si national waaw ah xam nga <laughs> eh, waaw eh, dem fayee ko ji bor ko fa ah loolu day gaa yi ngi wax ne eh, xañ na du nguure ba tax na dem jongante ji indi dara wala nga jongante ji ñàkk indi dara ah loolu wax dëgg yàlla dogalu yàlla la waaye mbër yi def nañ lañ war a def dem nañ wane nañ fulla ak ngor ak jom yàlla nag moo dogal ñu dem indiwuñ wuñ comme dañ daan dem indi nag bii yoon buñ demee indi ñu xam ne ndogalu yàlla la xanaa gën leen a ñaaxaar rek ñu gën a góorgóorlu rek beneen yoon incha allah. am na solo yow la nga foog ne la def moo tax indi yow la nga la ah, xanaa war ñàkk ñàkk rek man da noonu laa ko gisee waaw ah, bu ko defee beneen yoon. ah comme am na ñu leen yor ñu jéem a seetaat rek weneen yoon woo xam ne buñ ñu ci tegee eh, <laughs> yàlla mën naa def buñ demee am yaakaar askan wi tam am am yaakaar lii rek moo ci ne. am am na solo ñu gis euh, bu doon gars dem sax ministre bi génn li nga xamante ni mooy seven hundred thousand jox ko yi pour euh, su su wàllu yoon bi loolu tamit la nga am ni ko solo. dañ leen di jaajëfal rek ministre moom yàgg naa def loolu ndax. Euh, néew na lu Sénégal team national team di joge ko fii di dem bitim réew te ministre bi dugalu ci loxoom depuis jamonoy Marcel Mendy nag loolu moom wax dëgg yàlla yàgg nañ ko def comme sax def nañ ko nag di saam eh, te jégg na génn nañ ci àll ju takku dañ di ñaanal yàlla. waaw di leen gërëm nag ndax nit am na lu gis gis nañ lu lu ne weng lu mu war def te du ko def waaw loo xam ne buñ ko waxee buñ ko waxee mu waxu buñ ko waxut mu waxu nañ ko wax rek soo ne waxum soo ne duma ko wax itam keneen dina ko wax rek kon nag comme def nañ ko ah nañ ko wax rek gërëm leen rek jaajëfal leen lii rek laa ci gis. am na solo ñu bëri tamit ñu ngi wax ne daal euh, national team bi daal pic bi fiyaawut yow gis nga loolu gisal loolu. ah waaw xam nga <laughs> euh, national team bi fi mos a jaar suñ pigee rek di nga dégg ñu ne pic bi fiyaawut waaw pic bi fiyaana euh, coach bi baax na ah, bariwul loo koy dégg de. pig bi fii na kuuj bi baax na bariwul loo ko déggee di bëgg titi waaw su ko defee nag ah ñoo xam ne loolu la yàlla dogal man de man daal noonu laa ko gisee ginnaaw nga xam ne yoruma tiim bi yoratuma tiim bi ah wax dëgg yàlla lool rek laa ci mën a wax ndax fekkewu ma ba ñuy ba ñuy eh, wàcc seen wàccaay yéegu ma ba ñuy wàccaay amul dara loo xam ne lu ma ci yéeg la lu bañ dem ba ñëw kon lu ma ci wax rek dafa mel ni maa ngi ñaam jort wala maa ngi wax lu ma xamut lu noonu yow est-ce que est compétition bi yaa ko topp ndax soo bàyyi xel saa damay woo noonu bëgg ti affaire fan la toll est-ce que na ko la waaw yow yaa ma wax sax na ma ne gars yi dañoo compétit tey dañuy start compétition tey ci yow laa ko yëgee waaye bu dul loolu amul dara lu mu ci yëg dégguma ci waxuma ci yëguma ci dara te xam nga loolu loolu baaxut loolu bëgg tiidi man dama noonu sax dama ci xuus waaye loolu baaxut ndax li tax mooy eh, lu mu boni boni boni boni ñi demoon bëri ci ñi leen yóbbu woon maa leen mag maa leen jiitu ci làmb xam nga li ma la wax. Ambroise moo yoroon national team Sénégal waaye yoratu ko. dañ koo tarangal indi ko ci rajo yi indi ko ci staff bi def ko invitation d'honneur boo xam ne ci kaw la nekk. moom Ambroise bii bii romb rek kon du jaaduwut man xëccuwuma dara bëggati waaye li gënoon a jekk li gënoon a rafet ñu bind ma lettre wala ñu kool ma sax ne ma ah xale yi dañu ngi war a dem. waaw même su ma bokkul ci délégué bi sax ma yëg ci dara wala ñu wax ma ci dara waaye du noonu du noonu comme li ma la ko waxee rek ñi demoon maa leen gën a xam làmb maa leen jiitu ci làmb li ma def ci làmb defuñ ko ci làmb ñoom ñëpp nag ñi takka ngem mag ñi takkul ngem ba yëpp ci bokk yem ak fukki nit ak ñaari délégué yi ñu àndal yëpp waaye li gënoon a rafet li gënoon a rafet dafa mel ne Gambie amut ay mbër yu màggat fii ñaata ñaata mbër yu màgg dafi ne buñ ma ko waxut buñ ma joxut cër boobu itam waxuñ ma ko itam ñu wax ko yeneen mbër yu mag yi kilifa yi ñoom fexe fexe fexe ba fekkuñu fa ay magi làmb lii rek moo ci ne waaye daal lu mu ci mën a doon <laughs> à part from loolu amul dara loo xam ne lu ma ci mën a wax la lu ma lu ma leer ndax ba ñuy dem yëguma ba ñuy train yëguma ba ñuy pique yëguma ba ñuy def seen compétition yëguma te yoruma national team itam kon lu ma ci mën a wax encore encore coono bëri na ñu bëri daal ñeene daal gis nañ ne daal euh, online yi après kese moo de interview li nga xamante ne mooy encore loolu tamit la nga am li nga wax. waaw da nga leen koy laaj ñoom buñ ko defee dañ ko war a def ñoom online yooyu suñ ko defee dañ ko war a def waruñoo rëy waruñoo diis waruñoo yëg yëg yëgal seen bopp ndax luñ man rek maa leen ko dàq fuñ luñ xam ci làmb rek xam naa lu ko raw toog ci luñ def ci làmb toog naa lu ko dabul toog lu ko triple toog ci kon ñoom. dañoo war a ñëw di comme na ma ko doon waxee ñoom dañoo war a ñëw di root si ci ñun waaye biram dem si yàlla si waxoon na leen ko te loolu war am man mi itam <laughs> man sama wàllu wéy na waaye bu ñëwoon di root si ci man comme yow ni ngay def di di ñëw ñoom ñëpp ko war a def amul kii amul quoi. du ma ko bañal kenn laaju ma kenn dërëm laaju ma kenn paas waaye boo ñëwee ma wax la loo xam ne da nga naan dégg naa ne lii amoon na fi waaye ki ko fekkee nag. ki daan takk ngeen bu jamono boobu nag man bii tu fi ba fi tubaab bi jógee tey maa ngi ci làmbi Gambia nekk ci xale néew doole nekk ci kat yàlla kattan na ma nekk ci néew doole yàlla nekkaat ci làmbi Gambia kon ñoom xibaar yi nga xam ne dañ koy dégg yëpp ci diggante Gambie ak Sénégal ñu naan li xew na fi man sama kanam la <coughs> li gën mooy ñu sol seen dàll ñëw toog ma waxal leen loo xam ne bis bu mu fi jógee ñoom ñu ma ëpp xam-xam. ndax yow di nga xam loo xam ne fekkee xam nga ko sama sama ginnaaw fekke nga ma fekke ma fekke nag loo xam ne fekkewuloo ko kon ñoom bu ñëwee bëgg xam bëgg a bëgg a aki moo làmbi gàmbe foog ne xañ na mën nañ cee wax loo xam ne lu lu dul dañ la luñ ci mën a wax wala luñ ci mën a def mën naa koo def lu ko ëpp kon li ñu war a def mooy wàcc seen bopp sol seen dàll ñëw wala ñu wooma man kenn mësumaa woo téléphone damaa bëgg a waxtaan yow wàlli làmb ma bañal la ko xam nga li la wax te ñoom ñëpp ñi fi nekk képp koy wax ci làmb laa la koy wax ci làmb bu ñu ragaloo woon fii tey di wax ci làmb moo wax leen loo xam ne xamuñ ko te mënuñoo wax lu ma xamul ndax fi laa ko fekk fi lañ fi fi lañ ma fekk ma nekkee ñoom ci làmb ji balaa ñuy juddu ma ma ma nekk ci làmb ji kon ñoom lu ñu mën a xam ci làmb Gambie lu ma xamul te maa ngi maa ngi ànd ak suma xel nañ woyof comme ni ngay def loolu rek la. loolu rek ngay def moo tax nit ñi di wax ne xanaa bëgg rek moo lay moo lay moo lay eh, eh, kii wala lii Sénégal amul benn ndajum làmb moo fay gis te fekk loo fa ah, magum làmb ban la ban la même ñi nga xam ne sax ràññee nañ leen ñu yor ay online TV. ñoom ñëpp la dañoo bari ba bàyyi bari il faut ñu xam ñi nga xam ne am nañu online ñoom bu ma limee lamin rek lim naa ñëpp. kenn ku ci nek di nga jël mulai mu mak tek sa wet mu lay xamal lo xamut loolu mooy àdduna <laughs> waaye ko di woné né lambi Gambie mako sos tay yow ba lambi Gambie dé ba jekki nga dogo xam lambi Gambie nga dogo dugg ci lambi Gambie lolu du noonu. waaw loolu solo encore ba tey tamit ah, xam na dañuy national team bi rek ñu gis ah, gaay yu yóbbu li nga xamante mo ñaar coach benen coach bu mo nekk mbeuri benen coach bi mbeuri ah, timit ban jang nga ci am. ñaari coach lañ yobone Sidou Thior mo dem ak ak pak Senghor te mën naa ne euh, Pape Pape Sanga mooy coach bi Sidi Sidi Thion moo moo moo nekk Tineka Daara. waaw xam nga loolu nag wax dëgg yàlla boo demoon ci ku mel ni Ibrahima Soumaré secrétaire général wala nga dem ci président bi dina la wax loo xam ne loo looy mën a teg sa baaraam la waaye man. bokk bokkuma ci association bi yéeguma ba ñuy tànn xaw ma sax na ñaari coach lañ tànn léegi man lan laa ci mën a wax <laughs> mënuma cee wax dara xam nga su fekkonte ne ne dama nekkoon secrétaire général wala ma nekk koo xam ne ci istaafi kilifin bi laa nekk nga laaj ma ci dara ma ne loolu xaw ma ko wala fekku ma fa fekku ma fa man nga maa joxoñ baaraam ituma ne maa ngi daw responsabilité ndax man ci association bi laa bokk lu mënte doon rek ak boo wàllu bu ma féete rek ci association bi laa bokk dara waruma ji ump dara waruma wax ne fekku wala xaw ma wala yëgu ma wala tinuma ci kon amuma dara lu ma ci mën wax te yëgu ma itam tinuma lii rek la damay bañ ñu jàmm loolu la waaw xanaa loolu loolu eh, jàngal boobu nga si nga si nga si am. waaw te di leen ñaan ñaanal di leen ñaax di leen ñaanal di leen ñaax waaw di leen ñaanal di leen ñaax compétition du du combat nommé compétition beri combat nommé de combat nommé benn benn bëri ngay bëri mën naa am sax mën naa dégg nga li ma baax mm. nga dem di daje ak say morom lum gàtt gàtt gàtt gàtt di nga bëri fukki combat nangam te yëpp ay combat yi eh, combat yi combat yi fitna lay doon mm. xam nga li ma la wax. Mm. boo demoon tey ci ECOWAS dañ lay wax ne trois appuis jël la nga dem ci bëri bij bi benn appui rek jël la ki mujj daan bu ngeen marché nii ki la mujj daan dañ koy jox ndam diggante boobu itam. am na lu fa gars yi bàyyi lu sew lu fa gars yi gis nga kii attaque kii gën a attaque kii gën a attaque dañ lay jox ndam bu ngeen daanante yéen ñaar time bi jeex gën a attaque dafa am favori boo xam ne dañ la ko jox kon dafa mel ni eh, bëre bu metti la te nag <laughs> gars yi seen góol médaille génn ko yombut de gars yi seen góol médaille yi génn ko foofu yombut de waaye lum ko def def def def def lu ko def def def bëre ECOWAS man nga medal médaille bu ne waye nga dem ECOWAS génne fa médaille kar ha nga koy génne <laughs> ECOWAS bokkuñu ak naar yeeg tuba bi de ECOWAS bu fekkee da nga nara nek mbeur mo moo ne dañ lay tan nga nek yow da ngay nek mbeur mbapat di mbapat guddi di mbapat bëccëg fo mu dégg mbapat dem fa baña xaar combat nomé rek da ngay ba ngeer ba pare am solo ëllëg am tamit am ëllëg am tamit ñu bëri daal ñu ne wax daal national team bi dafa dafa war a rotate warut nekk. ban ban waaw xam nga dafay fekk ku pafam rek dañuy fekk ku pafam ñu jël la koo xam ne sa sa sisin baax na sisin bi ngay génne baax na loolu rek foofu rek leen lañ la mën a jëlee bu fekkoon regional championship dafa amoon dañuy bëri ba ba mu des ba mu des fukki fat fukki mbër ñu dawalaat. mu des juróomi mbër léegi juróomi mbër yooyu mën nga cee tànn ndax ñoom ñooy dem final ak semi final ak eh, third position su ko defee nga jël ci picc ci boo ko piqué kenn du la kenn du la wax na lu tax nga pique ko waaye régional championship amut xam nga loolu amut léegi yow foo ma foo mën a piqué ñi def performance bu baax rek foofu rek nga mën a piqué lii rek moo ci ne waaw am na solo xam na naa dañuy dem fi nga xamante si ni mooy diwaanu Sénégal ndax suñu bàyyi xel oncle euh, jamono ñëw naa fii nii euh, Modou Lo ak Ama Baldé boo ñaa ak Modou taxaw après oncle am benn kàddu mu wax mu ne ma bëgg titi Pikine lu gars yi def du yoon tey du yoon ëllëg ndax dëggul lu mu def man ànd ma si tey ànd ma si ëllëg ndax mën naa ne Ama Baldé Modou Lo taxawee mën naa ne euh, dëggul dafa war a xaar ba ba ba kii jeexal boo ñaa doo di jël ni nga xamante si ni mooy Modou Lo waaye démb bu ñu gis ëpp na peut-être Ama Baldé Euh, dëggal ñëw boo ñaay ñëw amasee ñëw comme euh, loo yàggoon bañ daal dafa mel ne daal euh, sa wax bi daal gaa yi daal dëgg nañ ko daal fekk si nañ ko loolu loolu ba ba njàng tam xam nga ginnaaw ay jàmm te nett la xuloo daanaka xuloo la rek waaye loolu moom bañ ko waxee wax nañ ko romb nañ ko te ñoom itam dafa mel ni dégg nañ ko wax dëgg yàlla ndax booloo nañ nekk benn Pikine buñ booloo nekk benn Pikine ginnaaw Fass Waalo pikin écurie Séeréer ñoom ñoo fi nekkoon écurie yu sax caaro yi ñoom ñoo fi nekkoon écurie sax écurie yooyu nag jur nañ di jur di jur jur ba nekk écurie yi nekk ay téeméeri téeméeri écurie làmb nag boo ci nekkee xale ba màggat ci boo ci xamul dara daanaka bàyyi ma nga woon rek liñ lay wax ci làmb yëpp day fekk loo xam ne lu ñu xam la buñ tëddee dina la sax boo ñu laajtee ñu jël suñu loxo teg ci lii moo ci ne waaye nag ginnaaw nga xam ne nii loolu dem nañ ba nga xam ne génne nañ ko euh, Ama Baldé euh, open press bi nga xam ne defoon na ko amoon na fi combat deful open press loolu jafe-jafe ak fitna moo taxoon waaye loolu du yoon waaye ginnaaw bii nga xam ne def na ko mbër yëpp ñëw nañ loolu loolu am na loo xam ne sas nañ ko te ñaax nañ ko itam Pape Sarr Pape Sarr Pape ku jërë gërëm la dafa yàgg dafa yàgg man dafa ko yàgg topp ci loolu dafa yàgg bëgg Pikine nekk benn boo déggee Pape Sarr wax loo xam ne dañ ñaan Pape Sarr dama waxoon lii ba pare wëlbatikuwaat ne defaat ne ba pare wëlbatikuwaat ne def dafa fekk ne nit kenn da ko bañ jikkoom ngay bañ dégg nga la ma baax waaye Pape Sarr li ko gënal ci àdduna yëpp mooy Pikine nekk benn moom loolu bu ko defee rek bu të bu nelaw képp koo xam ne jóg nga ci ginnaaw Pape bëgg Pikine nekk benn Pape Sarr dimbale. lii rek la bu ko defee nag ñoom ñi nga xam ne ñëw nañ euh, open press bi ñëw ci open press bi dafa mel ni jàppale nañ xale bi seen naataango euh, sas nañ ko bu ñoom ci seen bopp keneen bu amaatee combat itam Ama Baldé lépp lu jàpp bu ko fekkee bi dimbale sax mën naa ñëw euh, dimbale dimbale si gars yi ak ñoom soq ñëpp. lii rek la. am lu tax lu tax oncle waxoon ne euh, waa Pikine suñ nekk benn Modou Lo benn ngeen des da ñoom ñaar ñëpp lu lu waxu daal xam ne làmb di rek la. dama la waxoon ne la Modou Lo Ama jël na avance euh, boo Niang ñëw jël avance dafa mel ni sëkkatal nañ euh, Modou Lo te Modou Lo nii ma gisee ni ñuy doxe nii ni ñuy demee nii ak li ñuy mara mara laamisoo nii soo sàggantu ñoom ñaar dina leen boole ci benn ngemb lu mel ni li ci mel ne lañ gisoon. ñu mel nii lañ gisoon benn écurie kenn jël fa ñaari combat loolu am na ku ma déggee mu ne daana am waaye nag daawut amee nii furli furli du noonu de furli da ngay bàyyi ba kii jël combat ba combat ba jeex bañ na waa combat ba jeex na yow nga am lu la naqare ñu ngemb la ngay jégu dem furli ji waaye jël naa avance ci benn écurie xam nga Pikine moom daanaka benn écurie la jël naa avance yow tam nga ne poccot jaaru fa lay jël sa sa staff ñu ne la jël avance yaa ngi may ci wax jooju te na naa la sax wax jooju man weesu na weesu na weesu na moom kay nañ leen ñaanal yi jàmm ñaanal leen yàlla euh, seytaane bañ a doxal seen diggante ndax gis nañ fa ku mel ni baabu euh, ñoom euh, baaxoom ñoom amat seen te amat seen sax fi mu ne nii <laughs> jamono bi mu ñëwee nii ñu bari amoon nañ tuumaay am ñaari xel ne du ñëw ndax ni mu demee Gris Bordeaux waaye wone ne ne dereti Pikine moo ko gën a lu mu mën a doon te xaritam Gris Bordeaux lam seq ak moom teraanga dëkkandoor gam seq ak moom itam bu fekkee Gris Bordeaux nitu dëgg la day xam ne a ah, man kat kii lim def nii loolu la war a def bu doon man it noonu la war a def ndax làmb la bokkuñu écrit lii rek moo ci ne. waaw encore wax ji bëri na de ñu bëri daal ñu nekk ni benn waaye daal ñu bëri daal ñu ne daal yegg sa bi. waaw xam nga ñëpp duñ bokk bañ. waaw ma ne ñëpp duñ bokk bañ waaye ñëpp duñ bokk bëgg ñëpp duñ bokk bañ ñëpp duñ bokk bëgg bu doon loolu sàmm du sàmm du sonn waaye léegi-léegi nga gis na woo xam ne dana pëccat saaw ji jëm euh, euh, daw daw jëmale ko neex lii rek la waaye gis nga ci ay mag ñoo xam ne tey <laughs> ñëw nañ ah, ah, boot bootu jeg ñoom Ama Baldé xale yi waaye gis nga ci mag ñoo xam ne gisoo leen te xam nga leen ci Pikine xam nga la ma la wax looloo tax nag ma ne nañ boolu nekk benn Pape Diop Baston moo fi nekk nañ ko jàppe bàyyi Pape Diop du seen morom du seen naataango du seen naw la sax ndax fekkentewuñu wuñu bokkante nawlante wuñu ndax fekkente wuñu jëflante dara ci làmb ginnaaw ñoom judd nañ fekk fekk ko fi nañ dem di ko sukkal di ko raamal ñoom ñoom ñooy wut barke ci Pape Diop waaye Pape Diop du ci ñoom barke ndax Pape Diop dina dem wuti barke ci ak ñoom Fodé dégg nga li ma wax baax kon ñooñu dem nañ tarbiyu nañ leen bañ dem léegi ñoom ñoo war a toppi Pape Diop di ko yëkkati teraanga di ko jox laaj na leen jox leen laaj na leen jox leen jox laaju leen mu jox leen bis bu fi jógee yàlla na yéex ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom Mansour ak Geng Gogo ñoom Pala ak ñoom ñooy mujj nekk mag ñi ñoom baaxum ñoom ak ak ak për kii nu koy waxati sax manager bu mag ba manager booñang ba ñoom ñooy mujj nekk ay mag ak ñoom sil balle bu ko defee xale yu ndaw yii fi nekk ñoom itam ñooy ñooy mujj daw seen ginnaaw loo doonul taalibam du loo doonoon sëriñam lii rek moo ci ne mm-hmm. léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo fa nekk ca suuf suuf am na ñuy sax ay sax sax yu gën a ñoom presse ak Nyom pakolak nyom xale yoy nyom nañ nekk ben ak ñoom saay-saay nañ nekk ben amat sen siñoor xale yoy yëpp nañ nekk benn waaye bu leen buñ gisee succès ba tax ñu ne la yaa ëpp mbooloo yaa ëpp nga bañ dem bok bok bok ak say naw la nekk benn bis dina ñëw di nga bëgg a nekk benn mu tëla de waaw bu ko nañ gis amna amna solo man tes waa piki ñu woo ma ñu ne daal bëgg tiit dama jëlan si paa bi pour mu wax sa combat bi ñu xam ne ne dimanche Ama Baldé ak Gris Bordeaux oncle loolu tamit lan la def si yow sa combat jotee rek waa Sénégal ñëpp bëgg yàq bëgg ko euh, gaa yàkkamti daal nga sa combat bi loolu tamit lan si yow. dama leen di wax dama leen di wax loolu deñ combat yi nga ñëw fii yëpp dama lay wax loo xam ne da ngay nit ñi dañuy foog ne sax man dama li si xar fa euh, combat yi wala dama ko fanaanoo fekk xam fekk am lu ma xam ci làmb li ma xam ci làmb loolu rek lay doxe dama la wax lamb neke ci nekké nek xalé nga nek ci yalla kàttan la ngay bëri nga nek ci sa kàttan néew bo ci xamul dara bayima nga lamb bu combat taxawé nga xam ñom ñaar kenn ku ci nek tak fim mu ne képp kuy tak ngemb ci Gambie ci ci Sénégal Sénégal ak Gambie suma kanam nga tak lu koy dafa jeex képp kuy tak ngemb suma kanam nga tak ngemb fim ne ni tay mbeur yu mag yi fii Sénégal ba mu daj ak gambie képp ku fi tak ngemb amul seen la ñëk fim ne jamono bi may waxe yow ni léegi léegi léegi Eumeu Sène barki démb la takk ngeen suma kanam maa ngi taxaw muy bëre <laughs> léegi kan kan kan moo ci mën a euh, def loo xam ne man xaw ma ko wala kan moo ci am doxalin woo xam ne mënu mënu koo xam lii rek foofu rek laa ko sukkandiku lii rek laa mun leneen bu ko defee nag su ma analysé ñoom ñuy jël benn par benn benn par benn li leen arrangé ak li leen arrangé wul ñu ko ci jàngat te dañ koy gis am déet lii rek la. am na solo Dimanche Ama Baldé Gris Bordeaux ama ama soo ko indi noo <laughs> loo ko dëbër soo ko indi waaw euh, Ama Baldé ci wàlli mystique bi wala ci wàlli làmb ji waaw Ama Baldé fi mu ne nii boo ko gisee euh, boo summi bu summee ko dimanche du dimanche làmb jëm bu suma bu summee ko dimanche boo ko gisee da ngay foog ne Ama dafa wàññi poids dafa liggéeyoon li nekkoon ci yaram bi mu génne ko ci liggéey fa dugal fa leneen lu bees lu mu yaakaar ne moo koy may ndam est-ce que dégg nga li ma wax. Gris Bordeaux liggéey na ba gën a diis am Baldé jamono bi may wax ak yow nii waxuma ne moo ëpp doole rek volume ak doole du benn ba tey waaye liggéey na ba gën a diis Ama Baldé léegi Ama Baldé man su ma ko doon indi du ma ko jàkkaarloo ak Gris Bordeaux ñu jàkkaarloo nii mbagg ak mbagg. ñuy bëre dama koy bëriloo wet xam nga li ma la wax dama koy bëriloo wet ndax giri day jàng adversaire balaa jóg di xeex da jàng bu xoolee say ñaari tànk leroo ci lay jóg xeexee yow waaye bu gisee ne da jiital benn bàyyi benn giri du xeexe yow giri ma sa xeexe koo xam ne dafa jiital benn bàyyi benn day bàyyi ba nga jàkkaarloo sa garde sa garde mu ñëw attaqué te foofu giri ma yàlla may na ko ñetti koom yi laawom gauche droite bu la dalee rek làmbam jeex na li mu bëgg am na ko est-ce que xam nga li ma la wax. lam def euh, Ama Balde ci jàkkaarloo bi natt ko jël loxo bi teg ci oom bi nii sëgg di xool dafa bëgg Ama Balde wàcc tolloog moom su bis baa Ama Balde fat wàcc tolloog moom loolu la bëgg waaye loolu arrangé wut ko. nga arrangé wut Ama Balde. déedéet Ama Balde foo rek tëj gardam dox ak Gris Bordeaux di bëri moom wet. bu ko songee fekk wet la ko songee Ama Baldé mën naa tuur Gris Bordeaux ci ay simil laa la wax mën na ko tuur balaa ñu àgg ci saako yi mën na ko tuur ci ay simil waaye bu fekkee dafa jàkkaarloo Gris Bordeaux daw song Gris Bordeaux song mu suufee Gris Bordeaux mën na ko mbaar bu ko mbaaree moo ko ëpp waa mën naa wàcc def kàddaap bi. léegi léegi léegi ñu ñu ndax nga li ma wax balaa ngaa dugg feneen. li nga li nga ko dégg naa ko. waaw léegi koor bi ñëwaat kalaare kora koor bi. waaw kora koor bi arrangé na Gris Bordeaux ndax Ama Baldé mënta yàgg ci kora koor Ama Baldé day ubbi xeex corps à nga daw ñëw moo juyooloo yow dégg nga li ma la baax waaye corps ma corps am man su ma indiwoon woon Ama du ma ko corps loo. ko digal déedéet ndax Ama Baldé dafa yomb ubbi ci corps à moo tax boo ko bàyyi xel am na combat bu ñu bëri woon moo Sil Baldé ci benn adversaire benn ngemb lañ leen boole ndax dañoo ñëw. fekk nees am volim ñu ne nees lii du doole ñu ñëw sànjaafu nees ñeef nees xaaj leen yëlëb leen ba seen gardu ubbeeku mu kaaw leen benn benn bëri bi la nees bari ñoom kële ma nga bëri moom kawlax kii mi ngi bëri moom dakaar est-ce que dégg nga li ma wax mm-hmm. léegi su ma ko doon indi man li ma koy wax mooy dama koy dama koy xeex dama koy xeex loo yëngal jógloo gri bu xeex ba sax de bu jógloo gri mu dagg xeex bi bu fexee wër ko ba ba taxaw fi mu taxay woon dina fekk giri fedom na giri mënta mënul combat yu yàgg waaye ci force five minutes yi <laughs> man duma ko digal mu ñëw rek dal ci kaw eh, eh, ci kaw giri sa kaw kii kon kon ñuy wax la ànd nga ñu wër daa ñu ne Ama Baldé si tàkk sa kaw giri giri mën na ko doon mu këpp yow ànd nga ñu a ànd ànd ñu ah lu ne mën na am xam nga bari dóor lañ wax waaye man dama li ma koy digal mooy bu mu jàkkaarloo giri xeex su ubbee xeex bi ba giri jóg na demee wet waaw na demee wet xam nga li ma la wax mm-hmm. ndax giri am na am na handicapé boo xam ne boor boobu du fay mën a bëree na ma baal boor boobu dafay mën a bëree ku ko rek fofu ngi ko jaar <laughs> suko defé nak <laughs> mangok wa giri bordo giri bordo itam. su ko don indi dama koy wax ne ko bu arbitre soufflé bul may dara Ama balde sa first five minutes bul may dara Ama balde lépp luy xew fofu lay meuna xewé te combat bi dama ragal ne di son arbitre lay mujjé nañ dem. di arbitre nañ dem. am am na am na am na am na solo oncle ba ba ba ba ba ba tey tamit euh, ñu bëri ñu ne euh, ki nga xamante si nii mooy Gris Bordeaux combat bi xel la si am Ama Baldé jàpp la am si combat loolu tamit waa Gris Bordeaux bu jàpp bu yootee ngembal dënn Ama Baldé ba tey ko ba tey ko loolu loolu du loolu ñaanuma ko yàlla waaw su ma indi woon Ama Baldé du ko digal loolu du ko digal Ama euh, Gris Bordeaux yoot ba tey sa dënn ngemb rocci lefam bi wala raayit bi loolu duma ko digal ndax ñoom ñaar ñoo tolloo waaye lum tuuti tuuti tuuti giree ko sut moo ko sut ay cër te moo ko gën a diis yëree gën a diis moo tax wet la ko mën a bëree tuur ko xeexe moom wet jël ko tuur ko loolu rek la ko mën a bëree ci lima xalat amna amna solo Ama balde wax ben wax mané ne man Ama la suma paré man Ama ma pare ben mbeur manuma kat Ama do noko noko jangati waaw ah kuy dem ci xaré da ngay wax né man eh, eh, dañ ma man do wax lolu sa misi sa wax lolu da ngay wax né man ma man <laughs> may man may dan lolu ngay wax ba ngay ñak wala ngay keroog ngay am lolu kat moy lamb lamb mbeuri góor la waaw. xamna fiñu fi ñuy wala mystique wàllu wàllu kii Ada Fass guy gi itam foog naa kañ la. boobu itam dimanche la. waaw xam nga yaa ngi ma doon laaj ci wàllu mystique bi itam. mystique bi itam boo ko seetee Ama Baldé am na lu nekkoon ci moom. wala am na lu mu jortu ne moo nekkoon ci moom ci diggante bi mu bëreeg Modou bi mu waajal Modou ak ci time bi mu bëreeg Modou xam nga li ma la wax baax. loola moom man su ma gis-gis. gis naa ne loolu sangutu na ko ba génne na ko. waaye ndax man naa ndax diggante bi def na dara adversaire am ma doon joxe mystique damay joxe fi eh, foti bàyyi siis si. Ama Balde. ci wàllu mystique. ci wàllu mystique waaw. nga waaw. <laughs> li ma gis man li ma gis laa wax du loo nga ma laaj. Hmm. li ma gis xam nga Ama Balde def na mystique pour yaramam pour li nekk ci yaramam mu génn wala mu taxaw taxawaay bu wóor. ndax xam nga lu mel noonu la wax pour mu taxaw taxawaay bu wéer boppam da noon na tal adversaire am lii rek la li ma gis laa wax nag ok. kana kana kana ñaari ñaari mbëri ko ko si jàppale wala dégg am am ko wax ne xam xam li Ama Baldé mën ko solal de. ñaari mbëri <laughs> man déggantuwuma ca kenn déggantuwuma ca kenn waaw waaye xam nga tey tey ban bis la te alxamis la. fii ak sa fii ak dimanche loolu na xaj na fi. kar hello. sànq sax am am ko fekk bi la Senghor am ko làmb kooku mos a mos a jëmlu ci làmb kooku kooku bàyyi loolu kooku yeneen la kooku leneen mbir yi leneen mbir la waaw. léegi yow léegi yow sorante sa xaalis ah sorante sa xaalis sa muul sa Ama Baldé Gris fa nga fa nga te sa xaalis. xanaa ci ma ka ma doy. ka ma doy. ah, ah ci ki doy rek xam nga yenn yi am na loo xam ne yàq làmb jàmbur la. waaye yow yow déedéet du question la dama doon xam xam xam yow yow yow tey am nga am nga làmb ji kenn ku ne am na. waaw laaj moo tax yow xaalis. wax kii daan <coughs> wax na kii daan ci làmb jotagoon man bokkuma ci. déedéet. ñëw si Ada Fass Gouy Gui tey Ada day man day bu bu gi Gui daanee Ada Fass dina nekk surprise ci man. Hmm. loolu nga nangu. <coughs> bu ah, Gouy Gui daanee ah. nekk surprise ci man. naka waaw. loolu rek laa lay wax la ma la waxoon ci combat Balla Gaye ak Boy Niang rek. lu kenn ñëwante wax yow yaa ko ñemee wax. maa ko wax de la ma waxoon ci combat Boy Niang ak Boy ak Balla Gaye lan laa la waxoon Balla Gaye daan na Boy Niang mooy surprise ci man coow li tàkk ku ne di la kool ku ne di ma loolu laa gisaat fii rek amu leneen. man kay gannaaw kii moom kii am na fit ki wax li ma am na fit moom. ah waaw waaw loolu laa gisaat rek waxuma ne li ma gis wax ko looloo am de li ma gis. gis man la man man la soxal. lii moom moo ci nekk mm-hmm. ah, bu ko defee nag làmb promoteur yi noonu la dañuy xeexante te di <laughs> jàppalante kenn ku de yaa xam ne toj sa bopp jinax mm-hmm. ah, promoteur yi ñi ngi coow <laughs> lii rek la waaw xam naa ne nag ongul euh, euh, euh, mën naa ne booy Balla Jordan tamit coow li na si de booy Balla Jordan coow li bëri na waaw loolu moom soo ko laajuroon sax naa ko laaj ndax làmbi réew mi mm-hmm. balaa nga laax jaay laax lekk loolu la gars wax waaw euh, dafa nekk combat boo xam ne. Euh, combat njarndéem la ndax li tax mooy. Euh, booy Balla ba muy bëree. booba Jordan bëriwut. ba booy Balla di dégg daali booba Jordan déggagut daali. kon nag bor Jordan booy Balla mayu ko sens dafa liggéey ba egg ci kawam. ndax dégg nga wax. booy Balla moom lañ def favori ndax li tax mooy moo ëppi combat moo ëppi ndam moo njëkk ci làmb nag. xale bu bëree ba dab la toll ni nga toll ubbee ay ndam nekk ci ay ndam ah ku ne mën naa daan sa morom te làmb ji nag damaa ragal ne fañ ko def ndax dina fa xaj man loolu mooy suma problème man. la. ah ñaar fan la de. déet benn fan lañ mën a bëri. ñaar la booy Balla Jordan euh, samedi rëg rëg ba ba xarañ dimanche. booy Balla Jordan nga ma laaj. ñoom ñaar ñëpp duñ mën a bëri. duñ mën a bëri benn fan man maa ngi wax ci combat booy Balla ak Jordan ndax fañ ko ah, ndax fañ ko def dina fa xaj ndax li tax mooy li tax mooy ñoom ñaar ñëpp dañ bokk nañ ci mbër yi ëpp ah, ah, mbooloo mm, lii rek moo ci ne mm. Mm. am na am na solo ñu gis tamit euh, si dimanche ba rëg-rëg ak ki nga xamante ne mooy bébé xarañ waaw euh, bébé xarañ moom dafa may rëg-rëg daf ko may sens ndax euh, luur yi bébé xarañ bëri rëg-rëg bëriwut ak ñoom combat yi mu bëri rëg-rëg bëriwu ko wax dëgg yàlla bis yu mag yi mu am Reug Reug amagut ko donte Reug Reug xale la jàmbaar la moo man ci ay moromam moo tax xale bi jox ko loxo pour mu war a bëreeg moom. waaw noonu la noonu la bu ñëwee kenn ku ci nekk la nga la nga jàngewoon nga ñëw tere ko rek. lii rek la amul leneen ñoom ña nga buñ nekkee ci Balla Gaye ak Modou Lo mbër yi gën a màgg lañ man rek mooy liggéey loola. nga liggéey boo demee ñu yab la ne la boo demee góorgóorlu la ca des nag <laughs> wàllu teen la boo ñëwee ci pind bi nga yem. ok am na solo ñu tëjee rek euh, dooleel làmb ñoom moo wootee ànd seebin euh, diggante Arobase Robel ñu tëjee foofu. dooleel làmb ji. ñoo woote. diggante Arobase Robel ñu ànd seebin la. waaw xam nga Arobase ak Robel. combat bi dafa xaw a ruubante. man daal li ma gis bu fekkee ne ni euh, bu fekkee Arobase. ñëw na bëre. te bañ cee boole bëri amateur wala bëri supporter wala bëri waane. Mm. yàlla mën na ko may ndam lu sedd waaye bu fekkee dem na ba nga xam ne Robel xóot na ci combat bi Robel bu yeewoo ci combat pour daan ko jafe-jafe la problème la moo tax combat bi te combat bi combat boobu combat boobu combat bu métti lay doon ndax ñoom ñaar ku ci daanu rek da ngay da ngay dem ci kaw xam nga li ma la wax waaw. encore xam naa xam naa. ah Asi Ndiaye le ma la ci waxoon rek démb barki démb ba léegi yaa ngi may laaj ci loolu digganteem ak sax de déedéet ah kii kii fàtte naa daal xaaral ñu romb foofu. Mm-hmm. digganteem ak Abdoulahan Ndiaye. Mm-hmm. waaw xam nga amoon nañ fi jafe-jafe ci loolu nga ma doon laaj. Mm-hmm. waaye ma woon la rek na la ne ñoom. jafe-jafe boobu ñoomi neen la ñoo bokk ay teen xomb fu ñuy loxasoo euh, ay goj ñu ñooy loxasoo ay goj kon bu fekkee ñoom ñaar ay kilifa lañ ay nit làmb lañ bu fekkee ñoom ñaar am nañ jafe-jafe problème jafe-jafe yow wala nga mën a am accès pour wax wax ci lu baax wala lu jubale waaye di taxaw gis Asi Ndiaye lam lay defal wala nga yaakaar ne dina ma defal dara wala yaakaar dama defal dara ba tax nga wax ci loo xam ne luy gën a féewalale ëllëg si bi da nga ciy ruus ndax ñoom ñaar mënuñoo tàqalante féewalante léegi nag su ko defee nga wax ci wax ju rafet wax ju tegginu nag ndax ñoom ñaar ñëpp ay kilifa lañ boo waxee Asi Njaay lu jaaduwut da nga xam ne waxoo ko lu jaaduwut ndax kilifa la ni mu nekkee kilifa noonu Abdoulaye Njaay nekkee kilifa waaw su ko defee nag ñoom ñaar bu ñu amee jafe-jafe wala ñeneen am jafe-jafe buñ boo déggee kenn ku ci nekk wax sa morom wax def rek muy ubbi sa téléphone yëkkati sa téléphone tëgg woo sa téléphone woo sa téléphone euh, woo sa euh, sa nit ne ko ah, dama bëggoon day ngeen teg coow la ci suuf waaye di xamba taal bi di ko xamoo fu muy mujje xamoo ñoom ñaar fu ci des lii la mu xam naa dañ lay bàyyi sa kàddu gi mujj allahumma salli ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa sallim mm. yal nañu yàlla bokk dimbale mm. nañu yàlla may gudd fan ak wér ñi nga xam ne jógee rappal seen euh, kaala yi euh, yàlla euh, dëgëral sa taxawaay Upright TV itam yàlla na ko yàlla def télé bu mag lambi Sénégal bi lañ wax moo tax il faut ñu boole ñaari lamb yi di ci wax suñu xalaat lii rek la yal na yàlla defal mbër yi jàmm yal na yàlla may ndam te dagg bi ñu dagg mbër yi itam nañ koy wàññi buñ seet na rek kii am na kase bu mag nañ ko dagg moom daa mel ni kase yi ñuy kase yi ñuy fay mbër yi dafa mel ni ñoom du seen du seen wërsëg mbër muñ ci fay kase bu baax ñu ngi seet nu ñu dagg sa sa say say koppar di dagg say koppar ci loo xam ne teguñ ko fenn loolu baaxut koppari làmb koppari mbër boo ko daggee ci loo xam ne neexul la nga dugal ko sa gafaka wala nga dugal ko feneen foo xam ne sa coobare tax ñu dagg dugal ko fa boo sàggantul di ko gisee ala alali mbër nga lekk ko ci dagg xusur xusur dagg naa lii dagg naa lii te doo am boo sagantu loo loo jig de ñu ko fa jëfoon yëpp seen mujj baaxul waaw nañu moytu loolu mbër dafa metti wax ne ñu ci de combat bu taxawee fukki fan ak juróom combat bi bët bi set combat la di nga dajale ay mbër di nga leen jox ñu lekk di nga leen jox ñu naan di nga leen jox paas yow ci sa bopp li ngay génn sarax bët bu set di ngay génn sarax lu lu lem ni lu ni combat kon combat boobu du benn fan ba nga dalee combat ba nga jëlee avance nga commencé bëre bu ñu wax ne benn fan lu tax bu amee avance balaa balaa balaa balaa balaa bisu combat bi muy muy wër di euh, toltalaan day fekk lam yoroon yëpp jeex bu combat bi jotee relais ka muy commencé fay bor kon nañ yërëm mbër yi lii rek la amul leneen. mbër yi itam sunguf mo fa nekk suufi salañ sa fa dafa ba sunguf arbitre bi ñu ngi mi bëgg ñetti minit moo ci def wala ñaari minit moo ci des ngay daw di wër arène bi ngay daw daw di wër stade bi day feesal sa mosul yi tépp da lay sarse bu arbitre soufflé bu sa adversaire tàkkee sa kaw rek yow doo mën a seqi doo mën a dellu ginnaaw day fekk sa kiwis yëpp fees nañ yooyu na ci mbër yi bàyyi xel dégg nga mm. ok bisimilah kooku mooy oncle ba melax dégg nga kàddum gaar bu nekk lu am solo mbokk yi képp loo xam ne rek am nga loo bëgg jaay soo ñëw opérat man ni ko jaay képp xam ne rek euh, soxla nga opérat man nga call si 70 37 234 70 képp xam ne rek am nga loo bëgg jaay soo ñëw opérat yi jaay la ko ba mu baax jaay la ko noo ko bëggee.